suñu kilifa nek ki nga xamante ni nii président dafa am ci mom yakar di monsieur Maodo Malick Mbaye président am ci mom yakar am nu ko denk di agence nationale de la maison de l'outil ANAMO bi ko yalla denké lolu mom aussi tamit mu am ci ñun confiance jël ñu def ñu ay coordinateur mu nommé ñu coordinateur affecté ñu au niveau des maisons de l'outil bi ñu indé ci maison de l'outil bi ñu xamni ni ñun en tant que coordinateur suñu waréf moy ko ñu wàcc sur le terrain échanger avec la population accompagner leen jàppale leen ci li nga xamante ni mom moy mooy offre ANAMO bon j'étais à Diofior def fa benn liggéey quelque temps après ñu affecté ma ici à mairie bi ñu ñëwee aussi tamit ñu xool li nga xamante ne ni moom mooy jafe-jafe askan wi ñu wàcc sur le terrain def ay tournée au niveau des villages commencé liggéey ak ñoom ci li nga xamante ne nii moom mooy ci offre anamu yàlla dimbali ñu ñu defagum fii 4 mois bi ñu fi defee 4 mois léegi ñu am benn liggéey bi ñu fi def liggéey boobu ñu def nag pour def li ñuy wax évaluation moo waral tey ñu ne dinañu woote def ak waxtaan ak askan wi ci li nga xamante ne nii les offres de ainsi que l'importance de la maison de la maison de l'outil bon xam nga duma ni sax duma ni sax euh, li nga ni lañ ma duma ni nek na lo xamanteni ni lu oyof la pourquoi parce que le président son excellence monsieur Macky Sall dafa am lu mu tëral tuddee ko PSE le plan Sénégal émergent té aussi tamit bi su wax PSE dafa am lu ko jitu parce que à tout moment loolu laay wax moy que il faut que nous xol d'abord jafé jafé askan wi lan la jafé jafé askan wi fan lay commencé dafa am lu ko jitu dafa am lu ko topp aussi tamit dafa am fu ñu war jëm mo waral mu tek le plan Sénégal émergent et ci bi loolu ñu xam ni le Sénégal ne faut pas développer si les jeunes ne sont pas préparés ñun ñu que ni jeunesse bi ak jigéen ñi ñom ñoy aduna mo waral ci lolu nga son excellence mettre en place monsieur Macky Sall ñu war ci and dox ci ak ay yu bari ci monsieur